parce que gëm-gëm dafa am solo nu ñoo xam ne ci stade bi lañ fanaan nekk fa di noonu ah, am na ñu fi ñëw kon une semaine ñu koy waxee parce que euh, lu ma leen mën a wax rek mooy euh, gàmmu bàññees bi ak euh, aji màkka daanaka benn la parce que nit ñi kenn dalalu leen da ngay gis koo xam ne danga kenn dalalul kenn kenn joxul kenn da ngeen di toog ci mbedd mi di lekk di naan yaa koy jëndal sa bopp euh, soo soxlaa dem ci kër laaj li nga war a def def ko waaye dara indiwu leen rek lu dul xeencu Mawlana Cheikh Ibrahim continuer demaat seen yoon tey su jeexee nga gis ni ñoom ñëpp ndeysaan ñu daw delluwaat seen liggéey kon nga xam ni lañ gis ci Baye mu jaral leen cek année ñu ñëw ay ati at mu jaral leen lii am na lañ gis ak lañ xam moo leen waral loolu. Hmm? wallahi wallahi wallahi kon nuñ ko waxee kon nu ngeen koy xamee ci direct rek am na yoo xam ni mënuma ko maîtriser bu baax ñi fi yàgg ñëw te xam fi ñoo ko gën a mën a maîtriser waaye gis nga ba ñuy wàcc aéroport am na ñoo xam ne dañuy gaare seen jag privé yi ñëw fekke bés bi delluwaat fekke bés bi delluwaat loolu rek moo leen indi am na ñuy jóge fu nekk ci àddina bi di ñëw pour bokk ak ñun bës bi kon nag Sénégal sax bi nga xam ni ndax ñun lépp lu ñu am Sénégal lañ koy delloo ndax foofu lañ xam foofu lañ juddoo foofu la suñ bàyyi jógee waroon nañ di mën a bokk ci gouvernement Sénégal di bokk ci ñëw bii di ci barkeelu si ndax tiitaroo Cheikh Ibrahima Niass lu rëy la ci àddina bi nu ko doon gouvernement waroon na di ñëw di yónni délégation ba Nigéria ñëw wane ne ah, ambassadeur bi ñëw na démb ambassadeur bi ñëw na waaye dama wax kon par exemple ñi nga xam ne mouvement bi yëpp la ci Sénégal ñu départ di ñëw ndax seen tiitër la ne sénégalais bii nga xam ne tey ci àddina bi yëpp moom la ñuy xëccoo ñun ñoo ko moom muy Mawlana Cheikh Ibrahim loolu dafa rëy waaw dafa rëy dafa rëy. ndeysaan xoola gars yi nu ñuy rëj rëj loo xoola nu ñuy rëj rëj gis nga police yi police yaa ngi nii ci kaw ñu ngi nii taxaw xoolal ñu ngi nii di waaj a dugg lu may wax rek gis nga stade baa ngi. Estat Bangi Estat Bangi waaw renak, renak, renak, renak, ren nag ren nag ren nag ren lu ma la waxee woon rek dama jël salaamaaleykum Eisner. Kay, Kay Mustafa. Aşağı aşağı. Sorry. Sorry. Sorry, I'll go. Sorry, I'll go. Sorry. Yes. Enter, enter, enter. Officer, ما شاء الله مرحبا كيف حالك؟ اكيد وصلنا مرحبا جماعة how are you yeah I know آه الحمد لله يا مرسي آه الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله كان دوكاو يا رانتي yegsi nañ fi nga xam ne mooy ci biir stade bi yegsi nañ ci biir stade bi Tahirou mi nga xam ne mooy président Majma Abid di rais mu ngi nii toog moom ak ñun alaaji ñoo ko def ci jamono ju njëkk ja suñu sadiq mu ñoom ñëpp ñu ngi nii nekk ñoo xam ni kër du leen fàtte maa sama gars yi ñu may oo xamatuma li may rapporté mais sama mbokk journaliste yaa ngi may woo maa ngi ñëw ngi ñëw ñëwal nga dem ñu jël la sama mbokk yi. waaw ñu ngi noonu taxaw. sama mbokk yi journaliste yi. ñu ngi may woo. marhaban. ah. li may laal ñëpp li may laal sëriñ bi li nga gis nii noo ko tuddee. waaw. li may wax rek. li may wax rek mooy alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla ci Mawlana Cheikh Ibrahim Niass. li nga xam ni kenn du weeranteeg moom tey kenn du wax kan mooy Cheikh Ibrahim ndax Cheikh Ibrahima Niass moo waxoon ne yegg ci avion yi yegg naa ci li nga xam ni mooy ci bato yi ci géej gi fu nekk nga xam ne moo ci lislaam kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahim waaye moomu moo ñëw kanu ak kanu nga xam ni tey ñëpp ñu taxaw di yuuxoo booba tam moom Mawlana Cheikh Ibrahim Niass baay Barhama Abdallah sa liggéey yi war na àddina ndax tey suñ xoolee Abidjan ñu koy def Cameroun ñu koy def fii àddina bi yëpp ñu ngi màggal ba si Mawlana Cheikh Ibrahim bi lan moo waral loolu mooy ki nga xam moo juddoo Taïba Niassène ca gannaaw Saalum ñëw dugg ci àdduna bi jaaxal àdduna bi yëpp moom mooy ma doy naa Cheikh Ibrahim wallahi li ma ko wax sama xol dafa fees xaw ma sax lu may raconté waaye doy na sakk na xool boobu mu xam ne démb ci ngoon ba léegi waa missionnaire yi ñu toog dara indi leen toog rek gis doomu Cheikh Ibrahim Niass ñaan seen soxla dem ñii gaare nañ seen i jot gàllankoor kenn ku ci nekk ci ñoom yaa ngi toog ci mbedd mi yaa dalal sa bopp suñ bi ñoo ñoo leen ko kon ñu ngi santaat yàlla bu baax di santaat yàlla bu baax di ñaanal Sénégal nag yal nañ bokk ak ñoom bés bii ak lépp lu ñu mën a am yal nañ ko bokk ak Sénégal ndax duñ tiitaru mukk lu dul Sénégal lañ jugee waaye dañu leen wax kan mooy Sénégal. bëggul dem te moom góor la maa gis dafa waxoon ne gis naa samay njaboot ñu nekk buuru àdduna lu nekk nekk buur ñun ñoo leen gën a buuree moo tax ñemewuñoo bougé ñemewuñoo dem fenn ndax ci ñun la ñuy dollee ko essence oto du daw oto du daw mukk te essence amu ko essence buur la moo tax seen buur dañ nëpp seen buur mooy feeñ te Cheikh mooy buur daa def foog mooy mooy taat aywa sang bi ñu ngi laa gërëm di la jërëjëf waaw. kon dañu laa laaj nag. ndax foo commencé gis nii. dañu leen jugee seen hôtel bi ba fii ñaata loo gis seen ay nit. waaw lii de. waaw. di nga nit ñi ni ñu def stade bi. waaw lii dañoo daanee stade bi. xam naa yaa ngi almadina direct. alfayda xam naa ne directeur monsieur Guèye nga xam ni. ñoo doon toogandoo fii xam naa ne tey moom sori nañu waaye jege nañu ku jeex ci bàyyi ma xam ko maa ngi moom ñuy delloo ci wax ci Cheikh Ibrahim tey nag maa ngi Babacar mi nga xam ni suñu doom la maa ngi delloo ñoom waaye maa ngi directeur direct li ma la wax tey stade bi mënu wax nu mel ñëpp ñu ngi daw di ma ñëw di dimbale ma ko ndax xam nañ sama laal lu mel ci Mawlana Cheikh Ibrahim moo tax ma loolu xasaat na gis nga ñëpp bàyyi lañ am ñëpp bàyyi lañ gis ñëpp bàyyi lañ soo jaaroon baal bi tabal jaar nii ah maa ngi wax ak sama journaliste ba tabal waaw ñëw jaaral sama gannaaw

ah non non man garaawul man maa ngi ci rapporteur Mustafa zo muna jalan harama jalo harama jalo Mustafa jalo عبد الله قال قال قال الماما قال وقال بلا ماما ما اقول في دقي ما اقول آه، في امر تخو في اخر الزمان السلام عليكم ايها الملك أنا خليك very hard today. foofu waaw booy da avancé rek amul lu bee ma jàpp ak ñàkk gi coono baal leen moom ci kanam rek dinaa reporté jërëjëf jël naa ko jël naa yëpp say bàyyi ah ah

nga xam ne ku njëkk ki moo gisante woon ak Baños yaakaar naa la ci yow mi nga xam ne Nigéria dinaa mën a waxtaan ak yow dinañ mën a solal sa ay xalaat parce que Mouhamed Sanusi bu njëkk bi kooku moo ñëwoon moom la Baye ñëwaloon. Mouhamed Sanusi bu njëkk bi moom baayam la Baye ñëwaloon mooy Abdoulaye Bayero. Abdoulaye Bayero waaw waaw Baye ñëwaloon. waaw parce que boobu Mouhamed Sanusi boobu noonu. Ciroma lañ ko ooyee fi makaama bu ñu ko joxoon fi mooy makaama Ciroma léegi nag makaama Ciroma boobu noonu dafa am benn Ciroma boo xam ne jamono dafa am benn wali yàlla bu fi ñëwoon eh, ñu boole ko moom eh, Ciroma bi sonal wali yu wali yàlla bi daal di ne Ciroma boobu noonu mu ne ma bépp makaama bu ñu jox Ciroma dootu nekk buur kanu mais bi mu ko waxee loolu nag bi se bi Cheikh Ibrahima Niass ñëwee ci No! It's California. doon wax lu am solo. léegi ndax lu tax ma cuq la. waaw damaa xam ni xam bi nga xam naa ko. waaye gannaaw kii mooy Abdou Latif ibnu Cheikh Serigne Mbaye Niass. mi nga xam ne moom lañ ma tuddee. te xam nañ ne Cheikh Serigne Mbaye moo njëkk ci Mawlana Cheikh Ibrahim moo tax nag moom yàgg na Nigéria ba muy ñëw Nigéria yaakaar naa boobu quatre-vingt ans moo tax tamit ma tey ko du ko ma nettalee axbaar yi. léegi bi nga xamee ne Cheikh Ibrahima Niass fi taseeg bàyyi soxna si maam yi kii maamaati maamam sax muy Abdoulaye Bayro Abdoulaye Bayro na ko gannaaw mu doxal soxlaa ñu ko nag kii sama doom soxna si la jox naa la ko waaye nag dañoo am problème dafa am maqaama boo xam ne fépp bu ñu ko tuddee muy Curama benn wala moo ñaanal ne dootu nekk buur kan léegi na damaa bëggoon nga ñaanal ma kii nii bu gannaaw mu nekk buur kan nekk. Cheikh Ibrahima ne ko turam ma boobu noonu waa wala bi ma bu génnee ko ci moo tax dañoo nekkoon buur bu fi jugee bàyyi def ko xalifa moo tax kii nag bi mu ñëwee ñu tuddee ko ko muy ah, Sanusi bee di maamaati maamam moo tax mu ne moom léegi mooy ñaareelu Sanusi ne mooy ñaareelu Sanusi maanaam li ak maamam liggéeyoon moom la ko yàlla def te moom tim maanaam bi mu ñëwee Medina nekk gouverneur central banque dañoo Medina bi mu ñëwee ne damay laajte ndax. am na ku bokk buur bi koo xam ne mos naa ñëw pour ñaan pour nekk buur kanu ñu ne ko déedéet mu ne ndax Cheikh ma Niass mos naa war lu euh, waa njabootu buur bi ne day nekk buur kanu ñu ne ko déedéet mu ne kon nag nañ dem di xam mu ko kenn rek naa ne man soxla boobu dootu ma ko kenn ñëw na fi ut koo njëkk ma waaye comme ko kenn ñaanu ko nañ dem di xam bi mu ñaan suma man buur kanu laa ko ne démb sax wax nañu ko ci la nekkee yàlla def mu nekk buur kanu yàlla bu baax di ndokkeel ñëpp bi mi fi ne na buur kanu sax fas la ñëwee waaw bi muy dugga sax dafa jafe ak fasam parce que bu ñëwee oto parce que démb loolu la wax démb doon Cheikh Ibrahima Niass si jëmoo di bàyyi gis ñëpp ñu jugee Sénégal yi ñu dugg ci suñu rek dugul Maolana Cheikh Islam Alaaji Ibrahima moom moo ko waral nit teew àddina bi yëpp am gouverneur bi sax fi mel ni mooy gouverneur bi région bi moom mu defara bu dugg boobu ba léegi mi ngi doon accueil waaw parce que ñun nag moom ñoo bokk waaw dugg ci départ andoo ñun avant ñuy dugg gis nga sama dara ji ñu ma sañsee waaye xotteeku na fu nekk tooy na fu nekk waaye moom mooy président dëkk bi te mënut a dugg mënut a dugg xam ne loolu téemaan na ne ak ministre Ibrahima ak policier mi ak côté seen bi yëpp xam ne loolu yëpp kon dafa nekk loo xam ne mbiru baay bi kenn mënu koo toléré kenn mënu naa war na leen nii la ak naa la li ma mën a wax rek mooy mbooloo mi doy na waa parce que fii dañoo fonk kilifa gis nga tey buur bi tey ci boppam nu mu toogee nii kenn du ko jege waaye gis nga tey njabootu Cheikh Ibrahim Niass bi rek ñoo ko mën a yëkkati ñoo ko mën a defloo loo xam ne ñu mën cee nekk waaye li ma mën a wax rek tey ñii ñëpp ay buur lañ kii tamit Malick la ndax rakk buur bi la buur la boo xam ne mu ngi nekk fii ci biir Nigéria ñoom ñëpp nekk ay taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim xamante nañu moom bu baax euh, mu yàgg ñëw teew ñii nga gis fii tamit ñu toog nii ñëpp ay buur lañ rakk buur bi kon Cheikh Makhtar moo toog noonu Cheikh Mahamad El ñoo toog noonu ah kon daal tey luñ mën a Eh, kenn mënu ko wax Aboubacar Taïb Aboubacar Taïb Aboubacar Taïb Niass muy Cheikh Serigne Mbaye oh, soo ma mënee def en direct ñu waxtaan amul solo ah Bakar Abu Bakar Serigne sering Niass eh, ñu leen nuyu ñu leen nuyu di nuyu Cheikh Baye di nuyu Serigne Aliou وبرام جام كاساماس الشيخ باي مطيب الشيخ سليم بينس ماغ لاي نيو ماغ نيو نيب فاتو ان كان تاميت ابي تونكرا ادي تونكرا تا تا فما خامني موي تي غامبي ماغ لاي نيو آه. ابو بكر طيب ناس مغربي alhamdulilah ñëf ñëf macha allah maa ngi toog ak sa baay Abdou Latif nga xam ne dimbale. macha allah waxtaan ne. waa Nigeria la. <laughs> ñu ngi déglu ñu ngi déglu affaire yi macha allah wax dëgg yàlla nee na trop kontaan na fekk bu baax ndax mbooloo bi la ndeysaan Medina Baye Ngok Medina Baye Ngok wallaay nga lu rëy nga ma image boo xam ne kenn mënu la wax wanaan ma juma Mawlana Cheikh Ibrahim bi ñu gis allahu akbar nekk ci Nigeria nekk ci Medina Baye loolu moo lay wan ne la ñaari leer bu njëkk bi mooy leeral Cheikh Ibrahim Niass beneen leer bi mooy leeram Cheikh Ibrahima Niass bi moo tax nga wan ma fee wan ma fii jazakallahu xeyran gis nga ñu ngi nii toog ñu ngi toog ak Chérif Cheikh Omar sëtu Cheikh Ahmed El Tijani sëtu Cheikh Ibrahima Niass moo toog noonu ngay gis ak kaalam oh oh yéen Tijaan bismillah Aboubacar Taïb waaw laay son bi duñ la mën a dégg waaye gis nga lu may ñaqee wallaay wallaay wallaay ñes wallaay ñes ñes ñes ñes ñes ñes kontaan nañ trop macha allah gis nañ affaire yi Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoulaye mu tudd nu ngi nii asalaamaaleykum sëñ bi ñes ñu ngi lay nuyu maa defa leen dara yéen ngi si jàmm bu baax alhamdulilah macha allah macha allah rabbi xol sedd na xol sedd na macha allah rabbi xol sedd na dëgg fa yàlla alhamdulilah macha allah rabbi yal na yàlla sàmm aar leen nga ñëw si jàmm fekk ñëpp si jàmm allah. Mam Boy. ñes. alhamdulillah lii mooy wane bàyyi doomi Sénégal maanaam waa Sénégal wane ko suñu taroo ñu xam ne saxaar na nekk ko ñu sant yàlla ñu ko gërëm ñun si barkeem si la ñuy dund fii ñu ay satam ah, man fan yii rek si kano bii laa dëkk ah, maa ngi doon posé candidat alhamdulillah ñu commencé incha allah bi ci la ñëw ñun doomi bàyyi ñooy jël dëkk bi incha allah

Euh, may leen ma sama lumière. waaw ma sama lumière mën ngeen a dem. ñu yaa because waaw après bindal M C M C N. ah wait. Eh, Poussin sama kanam sama sama sama auditeurs yi waaw kay sama auditeurs yi di gis gis nañu قبول bañ maa fi mooy wax buur bi la benn ko soo jógee buur bi dootoo am réseau yaa dañu am détecteur boo xam ne waaw boo jógee buur bi quelque mètre rek dootoo am réseau doo am connexion waaw xam nga Nigéria nag dafa nekk dëkk boo xam ne dafa bëri sécurité ndax yëngu-yëngu yi dafay bëri looloo waral te ñoom seen buur yi moo leen gënal seen yi moo leen gën a seen lépp looloo waral kenn du leen jege ku dul doomu Maulana Cheikh Ibrahima gënu leen a waaye gis nga sëriñ bi mooy wax noonu gis nga fii mënoo sax xam lii wala laa mënoo gis lii wala lee fii daal la ndax ku ci nekk rek yaa ngi xëccoo doomu Maulana Cheikh Ibrahima saako ba may ñëw gis nga waa ji teg sama ci xottu ci lu dul benn cat boo xam ne pour waaye kenn du yàqal la kenn du yàqal sama jaseer bi sama sañse bi jëndu ko pour ñu ñëw di ko xotti di ko barkeeloo kenn du ko yàqal waaw waaw Yeah, Medina Baye. Yeah, Alhamdulillah, how are waa ji dafa ñëw di ma wan ah, ndeysaan photo bi nga xam ne maa ngi moom ñoo photo wu ca Medina Baye ci gàmm gi moom la ñëw di ma wan nii gis nga fu nekk la ñuy wane ndeysaan ndeysaan man nag des na tuuti des na tuuti ma wàcc daw dugg ci oto ba des na tuuti ma wàcc daw dugg ci oto ba ah parce que mënatuma mënatuma كل المواد مناتوما مناتوما That's not taking my wife. That's not taking my wife. Ambassador, ambassador Senegal, bu Nigeria moo toog noonu ambassadeur Nigeria. bu Sénégal moo toog noonu waaw moo toog na le muy monsieur Ndiaye ambassadeur Ndiaye waaw macha allah président mooy wax noonu mooy wax noonu moom mooy président bi ci jaane bokk suñu sët bi nga xam ne doomu Seyda Aïssatou Sarr mu baay ak Sané Awal mi nga xam ne moo nekkoon secrétaire Mawlana Cheikh Ibrahim mu bokk ci organisation bi nekk nit koo xam ne ñoo doon xëccoo gouverneur bi ci kaaw waaye ñu ngi justice di xaar pour ñu attan yàlla na ko gañe yaaro bi ci barke bésu maamam bi ñoom ñu nekk gouverneur kanu oustaz oustaz Ahmed Ba borom xam-xam bu mag bi mu ngi nii toogal ñëw na ni taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim bu mag bi ñëw na léegi mu ngi nii toog macha allah kan la suñu ci waa Medina mu ngi am ñu ñoom ñëpp ah gouverneur mooy ñëw gouverneur a ngi soog a am place mu ngi soog a mën a dugg te moom mooy président bi gouverneur mooy soog a ñëw pour dugg te mooy président bi. ana gouverneur muy na le war na kan sax bi mu dugal mi ngi ne ñu koy puus lépp ay pour kanu kañ kay moom waxul dara tey lu mu lu mu daj góor naa daal mooy gouverneur bi في بوري نخسن ماما وخول لي غيس اي بور نخت عبد الله مو دونو بايام سي جانغ يا مو دونو بايام الله اكبر الله اكبر امام ابو جا الله اكبر ابو جا مني الله اكبر ما شاء الله لا wakilin wanda shek mahi ya wakilta kuma ya eh. wata yi kawai Oh, yeah, yeah, I remember. Yeah, I'm going. Oh. السلام عليكم أيوب ملك كيف حالك؟ Sangue de ouro, mas... Não, não, não. Para, para, para. fan la I'm tired now. Olof supposed to supposed to You know how Olof to come. No, no. Yes. I go, I go. You want to go? Yeah. No. It's good. What up? Yes. Go, go, go, go. Hey, where's go? Go. Go. Feel like that, get me. واو واو بسم الله يا رب يا ربي تسنده منو ما منو ما دم كان ضربتين ما تسنده منو تما منو تما هيا هيا هيا منو تما نوي يس منطقة هيا هيا هيا